le lion de Guédiawaye Balla Gaye 2 na fii ci biir réew mi àllarba bii ñu weesu maanaam mercredi bi Sénégal doon jongante euh, demi-finale am moom Balla Gaye de 2 ndànk la def ñibbisi fii ci biir réew mi ca aéroport Blaise Diagne kon le lion de Guédiawaye gannaaw ay semaines yi nga xamante ni ma nga woon fële ca France doon waaj boppam ci ay xibaar tamit nee nañu da doon faj ndiggam xam naa faju na ba noppi am wàccaay bu gàtt boo xam ne def na ko dellusiwaat fii ci biir réew mi ngir mën a ñoŋal wàccaayam diggante moom ak Gris Bordeaux le lion de Guédiawaye moom mi nga xam ne dafa jóge ci ab défaite diggante moom ak Bombardier mu metti ko loolu metti entourage am ak ay supporteram mu ngi defaruwaat bu baax a baax ak stafam xoolaat boppam kon ndigg bi nga xam ne doon metti demoon na fële ca France nee nañu ca INSEP doon ko faj kon dellu si na waat moom Balla Gaye numéro 2 tamit dafa war a delluwaat ci ay fan yu néew fële ca réew France ngir waaj combat mbaam diggante moom ak Gris Bordeaux waaye ci diggante bi coow am na ndaxte booy Niang numéro 2 def na benn sortie démb ne. kii di Balla Gaye bu bëree ak ki xam moom mooy Gris Bordeaux dootul bëreetee ak moom ndaxte contrat moo leen boole woon te contrat boobu la ñu njëkk a signé mu des nag ci promoteur bi ak ki nga xamante ni moom mooy staff bu Balla gay dë xam naa li mu ñibbisi danañ ci àddu leeral ko ba mu gën a leer laata muy delluwaat ca France ngir waajalaat boppam bu baax a baax dellusiwaat na mu ko doon defee ngir ay supporteram daal di békk